Monsieur le ministre, à chaque fois qu'on dépose à, une ambassade un visa pour sortir, on ne te remet pas ton argent pour tu ce visa ce que Monsieur le ministre, avant tout, j'ai oublié de présenter mes condoléances à la famille des victimes du naufrage du bateau de la Gambie vers le Maroc. Que la terre leur soit légère. <laughs> monsieur le ministre je veux savoir si pèlerins yi avant ñu fiy jógee comme d'habitude ndax seeni pécule dañ leen koy jox au niveau de l'aéroport ou pas dama gëj màkk nag moo tax ma di ko laaj monsieur le ministre je vous demande Sénégal yi ni mu bëggee lu neex ni mu bëggee lu saf ngeen boole noog naar yi ñuy baxal ganaar yi rek di joxe tekki benn limon ku ñëw da ngay yooyu ndax loolu loolu seetaat leen ko nag monsieur le ministre des affaires étrangères en accord avec le ministre de l'Urbanisme, pour soutenir les Sénégalais de l'extérieur pour un immigré, un toit. ex ku nek extérieur di fa daw di daanu di daw di daanu bañu ñibbisi ci réew mi amoo foo dëkk gàcce magatu ko nga wax nga wax ci loolu Bapoulo Seydi Ba. monsieur le ministre <laughs> monsieur le ministre félicitations à l'ambassadeur du Qatar vraiment ça, bañ fa demee daf ñu téru and ak ñun lek ak ñun mais zéro virgule zéro pour à l'ambassadeur de Genève gisuñu ko sax à propos de l'immigration clandestine il faut être il faut être en collaboration avec le ministre de l'Intérieur borom Bahanami pour empêcher à nos enfants d'embarquer vers des destinations inconnues dégg na fi ñuy wax naan jigéen ñi ñooy paasal seeni doom am def de mais la plupart seeni doom buñ bunyi koy def buñu dem duñ ko yek tout dernièrement rek ci whatsapp genn na ñaari xalé yo xam dañoo dañoo gaañu ca dëkk ba ñuy def ñuy sét naka lañuy def genn seeni photo pour ku leen xam mu retrouver leen foog na ko yebal sa doom mu dem sa xel dina dem ci yegg na wala yeggul wala bu faato kenn dula annoncer ci whatsapp pour retrouver la monsieur le ministre monsieur le ministre waaw inconnu wax <laughs> il faut vérifier si exactement la commission du pèlerinage mu def ak ni parce que si yóbboo nit fu mu xamul war di top vous avez mo daan am xam ndax ñu koy def monsieur le ministre vous la waxé vous nak yi cher na mom ñepp bëgg nañu aji yi cher il faut penser aussi quelle mesure pour les pour les voyagistes yi nga xamné dañu dañuy jël xaalisu jàmbur yi ba paré dem nëbbu ji récupérer xaalis ba paré dem neub nga tàggu sa wa kër tàggu say bok ñu di la dalal ci hôtel wala li ba duñ la gis loolu tam war ngeen ci jël ay mesure tàggoo ne damay dem Màkka ñew ziyaare rek mo ci dess waaw Aziz fast track pour les passeports des Sénégalais de l'extérieur yene né fast track gaaw leen ci ñu koy jooy waaw Aziz nak mom Aziz mom moy kan réew mi dañoo santaane liggéey jigéen am jom takk sëram di liggéey waaw nga bëgg a am moom problème xanaa moom amul humanisme ci ci jigéen yaay man mii man de kenn ku dul Ablaye Wade Karim Wade du ma la gërëm barke sëñ Fall moo ma gënal ñëpp waaye ñëpp reconnaître nañ ne ku am jom ku am fulla la pèlerin bi da leen di yor da leen di toppatoo dañuy lekk dañuy naan am na voyagiste yoo xam ne bu ñu jëlee ay leen jox lekk duñu leen jox naan dañuy daw duñu leen sax gis ku mel noonu di liggéey mais àddina waxtaan a koy yow mi nag dénk nañ la yaay maan yow mi dima xool tu couleur bii sa njañ li denk nañ la yaay mam albis ci agence am bi yokal ko kotam te topato ko te set ko te teye ko te jàppale ko Aziz nak war nga setat sa bop nak abdul Aziz da bax kooku rek doyna way woy rek doyna way donc lool la diko wax ma wax nak ni yow duma wacc sama wax jeexagul <laughs> ma di la wax nak ni ba ni de nga mel ba nga àndeeg nit ni nga mel bi nga demee fee it nii nga mel boo dellu si waatee ci Karim it nii ngay mel noonu nga mel dégg naa nag ñuy wax sax na affaire wu mais dama ne Karim daal ko ŋàññi da nga koo jurul ku ko juróon ci sa geño gii mbaamu mu dagg ci sa biir bii da nga xam ne li ko dal metti na doomu Sénégal yi dëkk ci réew mi ànd ak frère Macky Sall ñu dox lu ne dem fu ne gis lu ne ñu wëlbati ko da xañ ko élection ba pare exilé ko. je vous remercie chers collègues je vous remercie je vous remercie La parole est à notre collègue Ndeye Lucie Cissé. Elle n'est pas là. Nous, passons la parole à notre collègue Aline Badara, Badara Ensuite, après.